mbokki internet Mak TV Sénégal gannaaw bu ñu leen nuyoo ñu amaat euh, mbégte àndaat ak yenn comme ni koy faral di defee bés bu jot rek ñu fas leen a dégtal xibaar yi li si gën a fës tey dañ koy rek daal di tàmbale ak tuerie bi nga xamante ni moom moo amoon foofee ca fa Bayotte moom nag loolee taxoon sax. ñu téye woon si ay doomu aadama lu tollook ñetti at a ngi nii boobu ba tey ñoo sa kaso ba bu ñooñee nag am na ku si bokk mu di euh, journaliste bi nga xamante ni rek moo di René Bassène René Bassène nag gannaaw ba nga xamante ni moom daat nay daat nay bokk si nga xamante ni ñoom la ñuy téye ca boobee mbir te dañuy wax ni sax seen euh, loxo dafa laale ca mbir moomee moom nag daal nay xam ne ni niki ah, tey jii nga xamante ni mooy ci lundi bi lay rek daal di entamé ab grève de faim pour rek di sàqu ñu daal di leen di génne foofe nga xamante ni mooy ah, ca kaso ba moom moomee nga xamante ni moo di ah, Bassène nag daal di xam ne ni daanaka lu tollook ay semaine ngi ni mu bindoon sax ab lettre pour rek daal di koy ki nga xamante ni moo di procureur bu tribunal bu Ziguinchor waaye nag dafa daal di xam ne ni depuis boobu ba tey nag amul benn réponse boo nga xamante ni am na ko ba tax na moom moomee sax muy daal di xam ne nag mënatul ndax kat dafa daal di sonn ca foofe foofee nga xamante ni mooy ca kaso ba depuis booba tey dem fay dund dafa daal di métti ba tax na moom nag daal nay xam ne ni jamono ji nag mënatul daal di uh, supporter li nga xamante ni moo di douleur boobee nga xamante ni moom lay rek uh, daal di uh, dund foofe ba tax na rek muy daal di xam ne ni moom war nañ ko rek daal di atte wala sax ñu daal di leen bàyyi ñu daal di génn ca boobee kaso moom René Bassène moomee sax mu mel nii rek dañ ko daal dégg ndax kat bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ni am nañ ko ndiki tey jii euh, ñu ngi daal di xamal ne nag ñoom ñoo ñi nga xamante ne la daal di euh, jàpp ca boobee mbir euh, seeni ay mbir nag dañ ko daal di taxawal ca kanamu tribunal. bu Ziguinchor maanaam ca chambre criminelle bu Ziguinchor le 21 mars bi rek ñu daal euh, dëgmal ñoom ñooñu nag gannaaw boo nga xamante ni tolloog ñetti at a ngi nii ñu daal di leen euh, téye ca kaso ba ca mbiru euh, Boffa Bayotte boobee nga xamante ni lu jege wala sax lu tolloog fukk ak ñetti doomu aadama sax lañ si daal di woon faat daanaka le 6 janvier 2018 ba tey ñoom ñooñu nag ñu ngi daal di xamal ni le 21 mars bi rek ñu dëgmal dinañ leen daal di taxawal ca kanamu chambre criminelle bu Ziguinchor loolee nag nekk kii nga xamante ni moo di René Bassène di daal di sàkku depuis euh, booba tey mu mel ni nag moom lañ ko rek euh, daal di euh, dégg ca boobe mbir bu ñu jugee ci loolu nag dañuy addu wax euh, ci leneen wax ci wàllum euh, politique ak li nga xamante ni moo di euh, passation de service ak installation nouveau maire yi nga xamante ni ñoom la ñu daal di tabbaat ci élection yi nga xamante ni moom la ñu daal di génn mu amoon sax exactement le 23 janvier bii rek ñu génn loole nag gannaaw ba nga xamante ni semaine bi yëpp ñu daal di nemmeeku ci gox-goxaan ñu leen di installé si seen ay fauteuil mu xam loolee nag am ba fa nga xamante ni. mooy ca Foundiougne Foundiougne nag ca benn euh, commune bu ñuy naan njiir euh, njiir Njirnda nag foofe euh, niñ ko xaare woon ameeru ni lu tax ndax kat ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon opposant wu maire bi nga xamante ni moom la ñu daal di falaat foofee nga xamante ni mooy ca commune ba ñoom nag dañoo rek daal di euh, maire bu futu ndax kat ñoom mun ñu accepte ñu daal di installer euh, ki nga xamante ni moo di maire bi nga xamante ni sax moom lañ fa daal di tabaat moom nag ba tax ñoom ñooñee ñu amuloon ay manifestation euh, ca bés bi nga xamante ni moom la ñu waroon rek installer ki nga xamante ni moo da moo di maire ba ba tax nag loolee ñu daat fay nemmeeku ay jàmmarloo yu métti métti doxoon ci diggante ñi nga xamante ni ñoo di ñi nga xamante ni ñoo di membre parti bi di alliance pour le développement di développement du département département de Foundiougne ak ñi nga xamante ni rek ñoo di euh, candidat wu euh, benn Bokk Yaakaar boobee nga xamante ni moom lañ tabaat sax ca boppi mairie ba loole nag tax ba ñi nga xamante ni ñoo di euh, opposition bi moom daal di rek amal ay jàkkaarloo ak ñoom loolee nag bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ni am nañ ko ñi nga xamante ni ñoo di force de sécurité bi sax ñoom dañoo mujjee daal di woowaat ay renfort yu daal di jógee fële nga xamante ni mooy ca Fatick pour rek daal di arrêté li nga xamante ni moo di manifestant yooyu waaye nag yemuñu si ndax kat dañoo daal di bàyyi ba affaire yi sedd ñu daal di dem fekk hôtel de ville ba maanaam mairie ba daal di koy taal ba daal di euh, yàq ay bagages yu baree bari ca foofee nga xamante ni mooy ca euh, biir euh, mairie ba loolee nag gannaaw ba xamante ni amal nañ ay gëstu yoo xamante ni amal nañ ko ca boobee mbir li waral nag loolee am ba ñu dégloo ki nga xamante ni moo di maire ba maanaam seen candidat ba dafa daal di xamle ni ñoom nag dañoo amuloon ab recours bu nga xamante ni jaglaloon nañ ko ki nga xamante ni mooy procureur pour rek daal di contester li nga xamante ni mooy victoire ba ndax kat ñoom dañoo daal jàpp ni li nga xamante ne mooy victoire boobee dafa rek daal di takk suuf ba tax na ñoom ñooñee dañoo mënuñu woon nangu rek kii nga xamante ni moom moo moom lañ tabaat foofee tax nag ñii di opposition ba moom daal di euh, xeex ak ñi nga xamante ni ñoo di partisan yi ba daal di laq li nga xamante ni mooy mairie ba waaye yemuñu sa ndax kat am na benn boutique boo xamante ni benn conseiller municipal bu Benno Bokk Yaakaar foofee di Aïssatou Sarr moom noo ko moom dañ ko rek daal di euh, taal ba mu tàq jëppeet dernière xibaar yi nga xamante nag jot nañ ko euh, ki nga xamante nag moo di candidat wu parti alliance urgence pour le développement du département de Foundiougne boobee nag jamono ñi mujjee woon nañ ko rek daal di téye pour rek amal ay enquete ci pour rek xam ñan ñoo def euh, boobee euh, mbir. xibaar yi ba tey ñu àddu wax ci leneen wax ci njàng mi ak njàngale mi gannaaw nag ba nga xamante ni ay weer a ngi nii élèves yi mënuñoo amal seeni euh, étude normalement ba tax nag ndiki démb ki nga xamante ni moo di gouvernement bu Sénégal ak ñii di syndicat d'enseignants yi moom daal nañuy taxaw waxtaan boobee nag ñu doon euh, fexe rek pour sàkku xool nan la ñuy def pour rek régler boobee euh, situation ba tax rek état bu Sénégal daal di proposer ñi nga xamante ni ñoo di syndicat yi bu toll ci 69 euh, milliards de francs CFA pour rek mën a daal di faj li nga xamante ni moo di seen ay njàmbat waaye nag loole moom dafa mel ni ñii di syndicat yi moom dalul seen xel ndax kat ñoom ñooñee dañoo rek mujjee daal di ko continuer li nga xamante ni moo di seen grève yooyu nga xamante ni moom la ñuy daal di amal lu tolloog euh, ñetti weer sax lu ko jege mu ngi nii waaye nag gouvernement bi moom euh, bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni moo di Abdoulaye euh, Daouda Diallo moom moomee nag daal mu ngi rek daal di augmenter li nga xamante ni moo di prime scolaire yi waaye nag li ni moo di indemnité de contrôle d'encadrement pour le ñoom it daal na koy yokk lu tolloog soixante quinze mille francs CFA am na leen lu nga xamante ni yokku na ko mu di li nga xamante ni moo di ñii di yëngu ci wàllum recherche maanaam ak documentaire ñoom ñooñu nag mu ngi daal di xam ne seen ay prime yokk nañ ko ba lu tolloog 50 pour cent maanaam daal ci gàttal lu tolloog enveloppe bu milliards de francs CFA euh, kii di gouvernement bu Sénégal daal na koy génnee waaye nag loolee dafa mel ni dalu xelu ñii di waa SAEMS ak waa CUSEMS ndax kat ñoom ñooñee seen revendication yooyu dañ koy rek daal di continuer ndax li koy firndeel mooy suba rek ci mardi bi nañ daal amal li nga xamante rek moo daal di euh, dëgmal ba tey euh, ci xibaar yi ñu wax euh, ci leneen wax nag euh, ci ki nga xamante ni moo di maam Diarra Fam di député boobu nga xamante ni day siège foofee nga xamante ni mooy ci assemblée nationale moom nag daf ay révélation yi nga xamante ni moo ko jagleel ci li nga xamante ni sax moo di avion bii di air air Sénégal bii di air mu di rek compagnie nationale boobee moom nag ki nga xamante ni moo di Mame Diarra Fam gannaaw ab texte boo nga xamante ni daal na koy bind moom moomee nag daal xam ne ni kat lii di ci Air Sénégal am na avion bu nga xamante ni daanaka euh, tuuti rek mu daal di leen yóbbu laabi siina ndax kat moom gannaaw boo xamante ni euh, jóge woon na foofe nga xamante ni mooy ca euh, Ziguinchor doon ñëw fii nga xamante ni mooy ci Sénégal ci Ndakaaru Njaay diggante booru 15 heures nee na daal vol boobee nga xamante ni moom moom la moom lañ duggoon lu tollook ñetti wala ñeenti yoon yoo xamante ni moom dañoo rek daal ci ab crash maanaam avion boobee dafa doon waaja rek daal daanu ba tax na moom moomee sax nga xamante mooy maam Diarra Fam mu rek ci état bu Sénégal ak ñi nga xamante ni ñoo yor loolee nga xamante ni moo di compagnie Air Sénégal pour ñu daal di xool avion boobee pour rek daal di kay euh, arrêté wala sax ñu xool nan la ñuy def pour daal di kay réparé balaa rek ab jëye euh, di am ndax moom moomee sax mu daal di euh, xam ne ci lettre bi gannaaw ba mu wàccee moom daat nay sant yàlla lu tolloo ko juróom-ñaar yoon pour rek rëcc bi nga xamante ni rëcc ko ndax moom moomee jàpp nañ rek jàppoon na ni du daal di egg fi nga xamante ni mooy ci Ndakaaru Njaay te avion boobee daanuwul moom sax kii di Mame Diarra Fam di euh, wax ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci avion bi jot jot nañ wala sax doy nañ ko li nga xamante ni euh, mooy ni moo di Mame Diarra Fam daal di xam ne ci compagnie Air Sénégal ak avion boobee ni moom la jàpp ni euh, état bu Sénégal war na ko daal di arrêté avant rek jëye di am ci biir Sénégal ba tey yi ñu ci leneen wax nag ci ki nga ni moo di magistrat boobee nga xamante ni moo di Boubou Diouf Tall moom mi nga xamante nag daat nay génn àdduna àdduna euh, ndiki démb ci euh, dimanche bi moom moomee nag euh, muy rek daal di génn àdduna gannaaw boo xamante ni sax daal nañu xam ne ni dafa xawoon am ab wopp boo xamante ni daloon na ko ba tax na rek ndiki démb ci dimanche bi daal la boobee magistrat moom daal di génn àdduna bokk na si nag ñu ko njëkk daal di annoncé mu di ki nga xamante ni moo di Seydi Gassama di directeur Amnesty du international bu Sénégal moom moomee sax daal di koy posté si page Twitter daal xam ne ne kat kookee nga xamante ni mooy di bu Diouf Tall nekkoon magistrat bu xarañ ci li nga xamante ni mooy ci biir Sénégal moom sax damoon retraite si atub 2018 daat nay euh, génn àdduna kon sax ñuy daal di xamal ni euh, ndi ki euh, tey jii sax lañ ko war rek daal di jébbal boro moom foofe nga xamante ni mooy ca cimetière yi nekk ca Sessène nekk ca commune bu Diourbel kon nag xanaa ci sama kaddu rek ak sama baat ñii di waa Mak TV Sénégal di ko jaal Sénégal waaye nag ak mbokkam ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko gën a jege waaye nag rawatina ak ñëpp ñoo xamante ni dañu yëngu ci wàllum euh, justice te nekk ci biir euh, Sénégal si Sénégal la ñuy desandi sax ba tey dem ba fa li nga xamante ni mooy ca Casamance foofee nag depuis lu tolloog semaine yàllaa ngi nii euh, foofee nag ab tension am gannaaw nag ab mbëkkante bu nga xamante ni doxoon na ci yenn membre CEDEAO ak ñi nga xamante ni ñoo di euh, rebelle yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofee euh, te kii di Salif Sadio daal di koy jiite moom nag loole taxoon ba lu tollook ñetti soldat moom wala sax ñeenti soldat ñàkkoon si seen bakkan waaye nag ñu téye woon si lu tolloog juróom-ñaari juróom-ñaari soldat yooyu nag bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ni am nañ ko euh, kii di Salif Sadio moom euh, tey jii si euh, altine bi la leen war a rek daal di jébbal ñi nga xamante ni ñoo di waa CEDEAO xibaar yooyu nag ñoo ngi ko am gannaaw ba nga xamante ni daal kii di Salif Sadio sax moom daal nay xam ne ni xibaar yooyu sax ñu ko jëlee si agence bi nga xamante ni moo di France Presse moom moomee nag daal di xam ne ni Salif Sadio daal nay xam ne ni na ko daal ñoom ñoo nekk foofee ca ca euh, Gambie ci fàttali nag euh, soldats yooyu ñu ngi leen téewoon daanaka le 24 janvier bii rek ñu daal di génn gannaaw mbëkkante moo xamante ne doxoon na si diggante euh, soldat wu CEDEAO yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofee ca Gambie ak ñi nga xamante ni ñoo di waa MFDC bu Salif Sadio. ba tey ci xibaar yi ñu wax euh, ci leneen wax nag ci polémique bi nga xamante ni moo juddu euh, ci prime yi nga xamante ni euh, njiitu réew bu Sénégal di Macky Sall daal nag kay jagleel ñi nga xamante ni ñoo di délégation officielle bi damoon fële ca Cameroun pour rek lii di Coupe d'Afrique des Nations boobee gannaaw nag lu mot semaine yàllaa ngi moom it boobu ba tey coow di si rek daal di juddu loolee nag tax ba ki nga xamante ni moo di rek Abdoulaye Sow Abdoulaye Seydou Sow moom xamante di deuxième vice président bu euh, fédération sénégalaise euh, bu football moom nag daal di euh, addu ca boobee mbir gannaaw nag ba nga xamante ni ñoo ngi ko doon sax daal di installé foofee nga xamante ni mooy ca mairie bu Kaffrine moom nag gannaaw ba nga xamante ni daal nay tontu ki nga xamante ni rek moo di maam Adama nduur ca li nga xamante ni rek moom la ko doon jagleel ci ay kàddu yu ñaaw. moom nag daal di xam ne nii euh, ki nga xamante ne nag moo di euh, kookee li nga xamante ni mooy li muy kaas nag amu ci benn droit ndax moom moome bokk woon ci délégation officielle bi ndax moom moomee kat dafa daal di xam ne daanaka ba euh, Sénégal demee ci demi-finale rek la daal di ñëw ca boobee tournoi ba tax na moom moomee nag lépp loo xamante ni moom lay wax ak di ko teg ci lu ñaaw ci deram moom moomee amu ci benn droit ndax kat moom moome gannaaw ba nga xamante ni Sénégal dam na demi-finale si la rek daal di ñëw ca boobee délégation te moom ñëwee nag amul benn privilège bu nga xamante ni daal euh, gàkkal nañ ko ko daanaka lépp lu nga xamante ni moom euh, bëggoon na ko dañ ko ko doon defaral ba ci ticket bi nga xamante moom la euh, na ni rek dañ ko ko daal di jox pour mu dem seetaani kon nag moom muy daal di xam na ni fay ñëw seetaan si ñu fayal la ticket fayal la restaurant fayal la hôtel bi nga xamante fa nga dal ba pare ñu jël coupe bi ñu day fayaat foofee nag loolee nag amul benn dëkk boo xamante ni nemmeeku nañ ko fa moom moomee na nga xamante ni moo di Abdoulaye Sow yamu ca ndax kat moom daal nay xam ne ni am na sax ñoo xamante ni ay doomu Sénégal lañu nekk fii ci Sénégal ñoo xamante ne ñoom ba Sénégal demee final dañoo rek daal di dem ci ay sëriñ pour rek ñu daal di liggéey équipe bi pour mu mën a pour mu ñàkk li nga xamante ni moo di final boobee maanaam ci gàttal daal am na ñoo xamante ne bëgguñu woon Sénégal euh, jël euh, boobee coupe ba taxoon ñu dem si ay sëriñ di leen fay pour ñu daal di gàkkal euh, boobee victoire ba tey euh, ci xibaar yi ñu desandi ci wàllum tàggat yaram ba tey sax dem ba fële nga xamante ni mooy ca arène nationale foofe nag la fa daan xew xewati na fa lu tax mooy lu tax ñu wax loole mooy que ni euh, maanaam chaise yi nga xamante ni moom la euh, stade ba daal di am yàqati nañ ko ndiki démb gannaaw nag ab combat bu nga xamante ni doxoon na ci diggante ki nga xamante ni rek moo di Tapha Mbeur ak ki nga xamante ni mooy Liss Ndiago moom moomee nga xamante ni sax moom la Tapha Mbeur daal di daan par kaw loole nag tax ba supporteram yooye nga xamante ni dañoo rek daal di mer ba futt daal di rek jël li nga xamante ni moo di chaise stade ba daal di koy dindi di ko wekkeeti ko comme nañ ko daan defee rek daal di koy euh, sànni ca biir euh, arène nationale ba loolee nekk ay nekk ay image yu ñaaw yoo xamante ni nekkul nag njëkk loo xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ca boobee euh, stade kon nag ñuy xaar ndax rek état bu Sénégal waaye nag ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor lii di gestion stade boobee ndax xam dinañ si jël ay matukaay waaw wala déet loole it mooy ndar képp sax xibaaru tey it leen jox euh, dig daje ëllëg ak yeneen i xibaar seen euh, chaîne YouTube bi di Mak TV Sénégal te leen wax toujours rek bu leen fàtte di abonné ak di bés cloche de notification bi pour ngeen di mën a am suñu ay vidéo au temps réel.